mais nañu xam ne suma bakkan bii la ma leen waxoon loolu laa leen di waxaat def naa ko addiya nekk fenn taxuma duma wax danaa continuer di wax danaa continuer di sulli mbóot yi te dinaa ci ñëw hmm. dak tawa dak tawa li may wax dafa leer immeuble bi ñuy tabax booy dugg biir Dakaaru ci biir deal bi ñu dugal ci mosquée omarienne li may wax lu leer la ci biir deal bi dugal nañ ci ba fexe ci roofaale ci mosquée omarienne boo rombee fi may wax ak yow nii ñu ngi tabax ab institut ci biir mosquée omarienne te deal boobu la bokk. Hmm. te dañu jël këru diine yi dugal leen ci deal bi. dinaa ci def conférence de presse. c'est grave hein. ce que je dis est très clair je dis et je répète li may wax bu dul dëgg na procureur suba woote ma dem wuy ji te man su may dem ay këyit laay yóbbu. jërëjëf dama ne. mètre carré bi mètre carré biir Ndakaaru ministère des infrastructures et des transports fi mu nekkoon dañ ko jaay ab chinois xam nga luñ ko ko jaayee. nda Ndakaaru waaw. bi jàkkaarloo ak douane. waaw. Mhm. xam nga luñ ko ko jaayee huit mille francs dañ ko ko jaayee. mètre carré mètre carré biir Ndakaaru huit mille francs Mansour bu la dara metti conférence de presse laay def danaa ko génne teg ci taabal